doon ngoroyool faat si anam bu doy waar boo xamante ne nii ku dem kër ga rek ba gis deret ji dama fa mel nga xam ne souffrir na ba xëy dee mu nekk loo xamante ne lu métti lool lool la demoon nañ fa nag ba ñu demee ànd ak nga xamante ne moom moo fa nekk muy bàcc wàcc nga xamante ne moom moo yor BNTV Sénégal ñu àndoon ak moom ci liggéey bi liggéey bu am solo mu def ko ci mu nekk xew-xew bu doy boobu sa kër Mbay Fall nañ dem déglu ji ñi nga xamante ne mooy tànt ji ak koñ ba ñi nga xamante ne bu ñu fekk yëfee na mu demee mu nekk lu waaw fii daal euh, li fi xew mooy benn tiis bu mag euh, ñu am benn xale boo xam te ni suñu jarbaat la euh, yaayam di suñu jigéen di suñu xarit macha allah toll ci presque matagul sax ñaar fukki at xam naa tuutee ko des ci décembre bi benn xale lu góor daal moo fi ñëw daal daal di koy jam ci ginnaaw bi ñu jigee Touba ci màggal gi. loolu daal moo fi am muy tiis métt boo xam te ni bett na ñëpp bett na waa koñ bi rawatina suma waajur yi nga xam ni xam ne ne xale bu yaru la bu teey daawul dem fenn wax dëgg yàlla jàng rek te dégg naa sax ni ci déwén la waroon def terminal mu daal di ku koy xañee noonu daal mu daal métti na ñëpp daal ci gàttal Mhm. waaw moom moom ci biir kër gi la ko jamee mu daw génn ci liñ ñu wax parce que ñun daa fekk ñu ñu ñëwoon ba doon dallu nag uh, ci uh, gaaw bi uh, si la ñuy wax ñu ko ñu wàcc ñëw fekk ko ci mbedd mi fii waaye tantam bi nga xam te ni ci kër gi la ko fekkoon moom nee na moom jot naa daanu ci ëtt bi jugaat am force jug daw ci mbedd mi daanuwaat foofu waaw boobu nag eh, xam naa ci la nag eh, daal di daal daal di perdale waaw ci lañ ko ñëwee eh, song ko foofu nag jàpp ko di ko bës ko yooyu mu xaw a diir trop nag ngir sappoor tamit ñëw fi kooku tamit ñu koy sàkkuwaat bu baax waaw ndax xaw nañ fi am waxtu ak nangam euh, sapor door a ñëw biñ ñëwet fekk mu ñàkk bakkanam waa suñ borom euh, def li mu bëgg waaye tamit nag daal ñu ciy sàkkuwaat rek ci wàllu boobu noonu bu dee yoon yi xat ñu fexe rek nit ñu utalee ci wàllu euh, bu dee dañuy xool maire bi wala délégué de quartier bi jege wala district bu jege ñu joxe foofu autorisation ba nga xam te nii képp ku lu mel ni dal sa kaw ñu mën laa jël gaaw dugal la fenn jéem a xool nag ay constat ki enquête loolu daal xaw nañ cee jaaxal daal ci yeexaay boobu noonu ci mbedd mi la nekk daal ba sedd guy wax dëgg suñu kanam mu nekk lu tiis nag bu mu nekkoon sa doom noonu ni ñu ko ni ñu ko dundee nii nan nga koy dundee nag euh, ñu ci masawu yaay ji bu baax baax muy ku dal di yaay faatu ku jullite waaye ku gëm yàlla macha allah ok loolu daal moo fi xew fii ci Kër Mbaye Fall tool jas mbaaw Concorde. paaka la ko jam paaka la ko jam ci saal man dama yaakaaroon ci wér bi mais da doon mel na raakol bi sotti deret gi sot fii laa ko seen mu sukk mu def ni sukk après mu amoon appui jug man ki laa dawee yëg ci kaw ci balcon ma séen ko muy dawaat ba daanu fële fa deewee ci kër gi la ko jëmee man gis naa ko ci kër gi moom bi ma sëppoo fii bi mu yuuxoo sëpp naa ko tiim ko gis ko mu mu sëgg deret ji bari mu am appui jugaat dawaat génn deret ji di ko sang muy daw moom maa ngi yuuxu ba bëgg nit ñi wala suñu dama tiit mhm. mais dafa yomb ñëw fekk nit ki ba si biir këram rey ko dem juste te def liggéeyam fu mu mënti nekk ñu def li war ci moom parce que tamit xale bu toll ci jàng amagu sax vingt ans décembre lay am vingt ans nga ñëw rey ko jéggi dem dafa metti moom daal bëggoona ko bàyyi moom li ma remarqué moom bëggoon na ko bàyyi parce que avant màggal xujje mi yor na téléphone xadi yor ko ci kaw ma ne doo jox téléphone xadi mu ne ba papa koy woo nee na bu ko jël loolu moom dégg naa ko ci moom à part loolu xamaatuma ci leneen non demul fii la gaañu ñëpp di ko gis loolu dafa ñaaw tamit te aussi nañu xoolaat euh, santé bi parce que nit ku gaañu 18 heures nga ñu gaañ la ñu ne kenn amul droit jël la ni ngay souffrir ba dee tamit loolu suñu mënoon nañ ci dimbali daal pour ñu dimbaluñ ci. mu a ñëw moo nañ ko dimbali ñu sauvé ko mais nit kuy souffrir ba xëy de ba dee dafa metti say mbokk di la tiim mënuñ ci dara metti na de metti na trop. waaw ñu koy def daal danañ ci dañoo war def ku ray mu ray la. li yàlla waxoon tant que dindiwuñ ko defuñu ko duñu am jàmm parce que yàlla moo ko wax ku rey dañ la war a rey buñ ko doon def kenn ñeme rey que boo xamee su ma defee lii lee ma ci fekk doo rey parce que ku ne xam nga ne jël bakkan neexul sëñ bi la rey peine de am la parce que lii ba ba léegi ñëpp a ngi ko def duñu am jàmm suñu njaboot léegi yow léegi yow boo toogee sa kër ñu rey la léegi yow fan ngay fan ngay rëcce fan ngay rëcce doo rëcc dafa metti de metti na trop ah mu metti nag bu ñu sañoon mu ne fi ndax toll na ci sëy toll na ci jàng jàng ba am jëkkër ñu maye ko loolu ñu xaar ci moom mais seen tuuti woon ci moom lii wallahi azim mu nekk xew-xew boo xamante ne moo am fële sa tool Diaz quartier Konkong nga xamante ne la fa am dafa nekk lu métti loolu gis ngeen Xadi Njaay moomu démb ba ñu fa demee ay mbokkam ki doon mujjee wax noonu mooy tantam moom mi nga xamante ne fa la ko feeyi fekk ndax dégg ngeen nee na ko waa ji ñëwee jam paaka bi moom dafa foogoon dafa doon vomir di wàccu deret mais ndekete yoo boobu dafa ko jam fii si pour si la dawee noonu gis nga deret bi yëpp noonu mu daw ba tëdd si mbedd bi ñu woo sapeur mais comme fi mu dëkkee tamit dafa xaw a ruxee def na plus de de temps ñoom ñu ne seen oto yëpp dañu demoon Touba si yoon beek yooyu mujj fa la tëdd te kenn mënul ko secourir ndax fi mu tëdd ak ni mu demee bu nee nañ boo koy bu hôpital tam kenn du ko laal noonu la mujj ñàkke ba kanam foofu ñu ko tëdd mu yiw ko fa mu nekk loo xam ne lu metti looloo may jaajëfal ki nga xam ne moom moo jàpp si liggéey muy bàcc aaj mi nga foofu ndax bu yëfi si koñam la bi mu amee automatiquement rek moom moo ko géré ba bi ma demee démb tam liggéey bi lu bëree bëree bëri xam naa intégral bi nekk lu metti loolu lenaa léegi kenn amatul fooy mucce da ngay nekk ba sa biir kër kii ñëw di la labat def la ñaawteef bi si xale boo xamante ne décembre bi la woon am 20 ans papaam bi mu gaañoo ak ren toll ak weer ak benn fan la rawanteeg moom parce que le 8 août la gaañu woon daaw le 8 août ren le 9 euh, septembre moom mu gaañu mu nekk loo xamante ne attaque weer rek benn fan la rawanteeg papa mu nekk lu métti lool loolu Aïcha. ndeysaan waaw sûrement kon témoignage ma seetaan kooku papa la moom. rakku papa ji waaw ah ok intégrative incha dina ñëw comme allo Sénégal la ñuy cof tuuti rek indi. rakku papa wax na yaay ji wax na aussi mu nekk loo xam ne lu métti lool lool. doy na waar ah. wallaay wallaay. en tout cas naa la nañu bàyyante la moo si jar ay nit. mbëggeel du forcé te mbëggeel boo koy forcé sa dootul doon lu naturel et puis rey bi mu ko rey dafa métti lool. nga jam nit ki fii muy daw. Mhm. beneen chose bi nday euh, li ma comprendre mooy euh, ñi nga xam ne ñoo war a sauver nit ñi. bu ñu jëlee oto yëpp yóbbu ko ci benn lieu. Mhm. loolu day doy waar de. Mhm. wala ñu woote ñu yéex ñëw. comprendre nga. Mhm. parce que cas bi am na fi yeneen cas am na fi da ngay gis. accident am bi fi mu tëdd noonu. voilà déedéet waaw da ngay gis accident am. Mhm. Euh, nit ki comme le cas de Jean Paul. trois heures du matin la accidenté. Mhm. xam nga tali bi trafic du am. waaw donc sapeur waroon naa teel a ñëw. mais ñoom lu tax ñuy tardé man loolu moom a jaaxal man. ba bu ñu waree sauver vie non non. teel ko ñëw 3 heures du matin. c'est pas toujours ñi gars balaa ñuy ñëw dañuy sonn. non il faut il faut relativiser c'est pas toujours. comme ça non mais gars yi Aïcha la plupart Aïcha accident bu amee da nga koy romb ci tali bi da gis nit ki ñu tëddal ko. ñuy woote peut-être aussi am na ñoo xam ne dañu doon def une deux trois. di fo di fo di woote ba loolu moo waral. Mhm. bu nit wootee sax léegi dootuñu euh, sawar ci ci dem parce que dañu foog ne nit ñi dañu. caaxaan la donc loolu moom surtout il faut ñu euh, ñu ñu ñu ñu xoolaat ko bu baax a baax. Mhm. parce que des fois ak mhm. le fait que nit ki euh, ñu gaañ ko accidenté ñu war a ne il faut ñoom ñu ñëw pour ñu doog yóbbu hôpital. waaw parce que nee nañ noonu bu ñu ko yëkkati woon yóbbu ko risque bi si am ñoom ñoo koy jël. benn ñaareel bi faaw police ñëw def constat bi. donc comme foofu tamit fi mu nekk dafa ruxe ñoom bi ñuy fexee ba ñëw oto yu yooyu di lakk la ñu indi oto yi fay lakk mënul indi mënul mënul mënul jël koo xam ne dafa blessé ñu mujj demaat bi ñuy ñëwaat fekk dog na police aussi ñëw def constat beeg yooyu métti na daal Aïcha lu ci mën am peut être ñu yokk seen effectif rek nga xamante ne bu ñu leen woowee urgence rek am na cas yoo xamante ne moom c'est sérieux Pape bon euh, c'est c'est vraiment triste hein ouais. parce que bon euh, li quoi mm. bon te comme que waa ji dafa jame ba pare daal daw booy que dinañ ko j'espère que dinañ ko dinañ ko traquer jàpp quoi parce que bon am na yoo xamante ne tu te la question yoo xamante ne les peines de ko fi andiwaat sax parce que voilà euh, homicide bi moom bon doy na waar daal mhm. doy na waar j'espère que ko jàpp bon les les les prochaines heures yoo nga xamante ne bon moo nekk suñu kanam quoi parce que bon pour man bon loolu loolu la mérito quoi kii moo mérito nag ñu jàpp ko ba man dañuy wax détenu politique. Euh, ñi si ñu jàpp yóbbu si kaso yi kii moo mérito nag ñu jàpp ko yóbbu ko. kii moo jar a jeex ba gis ko. exactement parce que am na yoo xamante ne c'est inacceptable quoi. c'est inacceptable franchement. Ah. mooy li ngeen wax rek jeexee ngeen wax ji bëgg naa la bëggatuma la nañu bàyyante. mu rey ko dafa yomb en fait dafa yomb. te nañu dimbali suñu hôpitaux yi Aïcha nañu dimbali suñu ñëwee indi cas bu bu grave nañu faj bu ñu xaar diw na dem indi xaalis wala dara parce que aussi ñàkk nit dafa metti lii xale bu ndaw 20 ans war a def année bii nii bac dafa metti bon ñu masawu leen bu baax a baax xëy na li mu def une heure ci biti seen jël siw ko metti na ñëpp mais bu dara am rek ñu ne noo sapeur pompier defu liggéeyam ñaata nit ñooy accidenté sur le coup ñu ñëw jël si leen yóbbu leen à l'hôpital sur le ñu faj leen sauver seen vie loolu mënuñu ko compter. Mhm. yaa nag des choses yoo nga xamante c'est à revoir lan moo tax ñu yéex a ñëw. Ah, pour ce cas ci ak yeneen cas yeeg yooyu noonu. oui mais il faut relativiser. man loolu ñu ñu mooy waral tax mel nii day faral di am mais lu ci mënti am daal nit ñi gën a def attention ci ñi ñuy àndal parce que comme ni koy faral di wax man nga ànd ak nit doo xam man xam nga dama lay faral di wax ni suñuy tooñante nii en dehors d'émission man duul sax dama ko sëq góor mm-hmm. du indi yeneen i si des ba indi mbéjak ba indi li nga xamante ne mooy yu mel nii waaye daal doy na waar di jaajëfal képp koo xamante ne mu ngi woon kër Mbaye Fall démb bi ma demee ñu ñëpp ñoom ñu apprécier émission bi merci la ñoom ñëpp maa ngi di baax a baax waaye comme ni ma ko waxee rek comme émission xew-xewum travail d'équipe la di jaajëfal waa Euh, guy gi guy gi nga xamante ne moo nekk 221 euh, di jaajëfal aussi waa wasaare wasaare société ñoom ñi nga xamante ñooy taal bi sëñ Fall waaye di jaajëfal aussi ki nga xamante ne moom mooy bàcc wàcc moom mi nga xam ne moom BNTV Sénégal nekk foofu si Kër mbay Fall gérer information yi fa nekk yëpp rendez-vous incha allah vendredi si beneen xew-xew boo xamante ne xew na si réew mi Aïcha incha allah merci Pétaw jaajëfal nañ la kii naa merci beaucoup xanaa ma profito rek euh, souhaiter joyeux anniversaire à une amie donc euh, Niki Silla ñu gën ko xam ci Odette wala Kairé euh, donc dans la série Mœurs wala Vautour donc la star je te tey euh, di la ñaanal nga yàgg koo dund avec auprès de ta famille auprès de tes amis euh, donc di leen jox di daje rek incha allah ba demain. incha euh, merci beaucoup. Ah, à demain Assi leen 10h ngeen am seen flash d'information à 11h ngeen ànd ak ak Bira dans la mi et leurs invités quant à l'équipe matinale nous vous donnons rendez-vous à demain incha